mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen bëggee di leen ziar di leen wax ni yéen a ngi seen seen banlieue fësal euh, feggoog seen yi nga xamante ne nii euh, mooy euh, SSM feggoog ak ki nga xamante ne nii it mooy GRFM tey nag ñu ñëw biir ginnaaw raay seet si boo xamante ni nii pas-pasam ak liggéeyam ci biir ginnaaw raay ku nekk xam na ko ba tax na tey du ñuy sori balaa ñuy sori dañ koy jox mu nuyoo nuyu mbokk internet yi nga xamante nii ñooy seetaan banlieue fësal Lamine maa ngi lay nuyu di la bëggee di la ziar. waaw Xaadim maa ngi lay fay. Mhm. Eh, di la bëggee di la ziar yow it. Mhm. waaw di nuyu ñi nga àndal. Mhm. ñëpp di leen bëggee di leen ziar. di rafetlu émission bi ngeen xamante ni tey moom ngeen ma invité muy banlieue fësal TV muy lu ñu dégg nag wax dëgg yàlla sawar naa ci jàkkaarloog yéen. te sawar naa tamit loo leen ma wax rek ma tontu ci. voilà mbokk yi euh, comme ni mu ko waxee rek euh, sawar na tamit pour ñëw tontu nu ci question yi nga xamante ni nii it moom lañ ko war a laaj euh, ñu war a dem ci li nga xamante ni nii it mooy Lamine Ndoye kan mooy Lamine dooy ndax gis nañ Lamine Ndoye tout le temps mi ngi ci activité yi tout le temps mi ngi sonn biir ginnaaw raay ñu bëgg a xam kan mooy Lamine Ndoye. waaw Lamine Ndoye nag kenn la ci doomu ginnaaw raay. Mhm. ah ku yàgg bëgg ginnaaw raay eh, tamit di wax di dox ci ginnaaw raay. Mm-hmm. Eh, Lamine mooy kan mooy ki nga xamante ni tey bu sañoon ginnaaw raay mel ni États-Unis mm-hmm. lamin mooy kan lamin nag moo mooy daanaka Baay Faalu ginnaaw raay. ku ma xam ba xam ni depuis bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi dox ci ginnaaw raay pour mu baax kon lamin sax suma ma naree toog di wax ci Lamine ah mënuma wax sama bopp waaye nag nañu jàppale rek Lamine mu bëgg ginnaaw raay toog di waxtaan ak yéen te lépp loo leen bëgg a xam rek di ngeen ko dégg ci lamin ci leneen. jërëjëf dégg ngeen ko ci euh, nuyoo bi nga xamante ni it euh, moom la def euh, di koo xamante ni it comme ni mu ko waxee ndaw la loo xamante ni chaque jour mu ngi dox ci activité yi waaye nag ñu jëm ci loo xamante ni it. Mhm. am na solo muy maire ñu jëm ci wàllu jongante boo xamante ni maire mais balaa ñoo sori. gis nañ Lamine nekkoon koo xamante ni jàppoon nañ ni tey jii day dëggal boppam. Euh, samp maire mais tey jii dañ ko gis mu jéeg-jéeg bootu ci ginnaaw nit lu waral loolu. waaw àdduna boo dee dox ay njàngat lay doon xaadim parce que nit ki xam na fi mu toll ak ñeneen ñi tamit xam nañ fi ñu toll bu ñu boolee tolluwaay yi dañuy mën a ànd. ndax ginnaaw raay benn bopp la kenn ko mën a xar ñaar ndax xëccoo boo gis ak am na kuy perte aussi am na kuy gañe man nag ku ma xam rek dama bëgg waxtaan bokkoo ndax lii jëmale ginnaaw ra eh, eh, kanam lépp loo xamante da koy jëmale kanam rek maa ngi ci moo tax nag su ma gisee sax partage war am bu ñu waree boole ma dem fa ñuy boole woo xaadim kon man noonu lay liggéeyee ba tax na pour man ma dem cavalier say du yomb waaye nag jamono ngi ñëw ci kanam nag nit ku nekk nag am na contexte politique moo laaj ñun ñu ànd nii moo tax ma ànd ak gars yi nii. mais Lamine kan la àndal. waa Lamine loolu ku koy laaj sax daanaka. waaw leneen lay doon ndax Lamine Waljoojo Ndiaye la àndal. Waljoojo Ndiaye waaw Waljoojo Ndiaye la àndal. Mhm. mais pourquoi parce que gis nañ ni euh, euh, président Macky Sall mi nga xamante nii moom ngay liggéeyal bi muy choisir euh, dañoo gis mu choisir ki nga xamante ni moo fi nekk. Mhm. di Pape Ndiambé pour mhm. pourquoi Lamine tamit topp ndigal yi nga xamante nii moom la président Macky Sall def. comme ni ko comme ni ko say moroom yi koy liggéeyal defe waa dëgg la Xaadim président président la kenn warul tëb ay waxam. waaye ñun bi ñuy jóge fii di ko jàppale dafa am ñaar yu ñu opté woon. ne ko président mu ne ñun naam ñu ne ko. Mhm. ñun kat ginnaaw raay moo ñu soxal. Mhm. dañoo bëgg li nga xamante ni mooy suñu priorité mooy canalisation. Mhm. li nga xamante ni tey mooy suñu priorité ginnaaw raay am ay marché li nga xamante ni euh, mooy suñu priorité ginnaaw raay baax. waaw waxtu wiñ ko ko waxee. boobu dañoo jóg pour moom. ne nag comme ñun. comme ñun ñi nga xamante ni tey ñu ñoo war a ñëw fii di la jàppale. sunu mbébét yëpp mooy que ni tey ginnaaw raay na baax. mais boo gisee ñun aussi mu choisir tête de liste ànd ñoog bi. parce que aussi ñun aussi à notre niveau xam nañu. kan mooy waali ak xam nañ ñi crème bi waali àndal. parce que tam tey am na loo xamante ni tamit buñ ko seetaanee. mën naa mën naa yàq ginnaaw raay. mënu nag mais da nga jàpp ni. Mhm. Euh, président Macky Sall bu fi tegee euh, euh, pam Ndiambé Dieng nekkul luy defar ginnaaw waaw du ma ni. Mhm. bu ko fi tegee du moom moo ko fi teg. Mhm. mais moom moo ni topp na jiital naa leen. waaw jiital naa pam Ndiambé pour ngeen topp ko. waaw jiital boobu. soo gisee topp ñu ko dañu xam ne ñun bu ñu ànd moom dañuy ànd ñun ñëpp daanu. ndax la li ko waral mooy tey. ah ginnaaw de ku ne xam na tey. li fi nekk. durant bi ñuy ànd ak président ba léegi. amul lum ñuy wax ñu teggi ko wii ja ba ci noo ji ba ci 2012 ba tey. mais ngeen bëgg a ñëw fii teggi ko. waa teggi ba nag boo déggee teggi ba. Mhm. ku ci nekk am na sañ-sañ fi nga dëkk moo la gënal ak lu mu mënti doon ak lu ñu mënti teg. parce que am na ci ñoo xamante ne ni APR lañ nekk mais topp nañ Pape Niambe. topp nag xëy na ñoom bëgguñu ginnaaw raay non. dama ne même buñ ko bëggee aussi. Mhm. amuñu njàngat ci ginnaaw raay. amuñu njàngat amuñu njàngat tam ci ginnaaw raay loolu laa jàpp. Mhm. parce que aussi sooy xool. Mhm. parce que président ci boppam. xam na parce que qui détient l'information détient le pouvoir. mais nag ñun tey li ñu añee wala li ñu reere président mënula la koo wax. sunuy nguni ginaar pepp yañ fa dugal tey président mënu la ko wax. mais ñun ñoo ko mën a wax li fi nekk. kon na nga jàpp ne bi fi nekk baaxul daal. non bi fi nekk. même bu baaxul dama naan. dafa am luñ ko denk té liñ ko denk niñ ko gisee doxul. doxul niñ ko gise liñ ko denk doxul niñ ko gisee. Mhm. doxul ndax lan non li tax doxul. parce que ma ngi gis mi ngi def ay canal ma ngi gis euh, mi ngi japp ci ay liguey yo xamanteni ni nii ba légui mi ngi ci euh, ñu ngi commencé gis yenen canal yo xamanteni mi ngi judd pourquoi liguey bi doxul. wa tu sais que canal yi aussi il faut ñu xam tamit lan mo andi canal yi. lan mo kay indi fi réalisation présence état mo ñu jox marché bi. état moo joxe marché état moo ñu jox marché bi jaare ko par APIX. yaa koy waxee ci banlieue fësal maa ngi koy waxee ci banlieue fësal. Mhm. Macky Sall ñun marché bi jàpp nañ ni. Mhm. moom moo ko fi def. Mhm. jàpp nañ ni aussi kat yi tey canal yi commencement bi ko APIX di defar moom la. ñun amuñu lenn loo xam ne tey mën nañ ko joxoñ ne diw moo ko fi def. waaw loolu mooy sunu problème. mais léegi euh, Macky Sall mi nga xamante ni moo fi def canal yi. waaw ñëw ni leen topp leen Pape Niang mais ngeen ni du ngeen ko topp. loolu après ba yat bi du dal seen kaw. non. yat dal sunu kaw ci sunu réew bi ñu bëgg jaral nañu ko. waaye dañuy xaar. ba ca bés ba ba mu jeex. ca la tontu di neexe ca lépp lu ñuy def. parce que li ñuy def xam nañu sunu dëkk xam nañ li ñuy jooy. moo tax ñu def ko. kon instant bi su ma la déggee da ngaa sacrifié wu euh, dem ci euh, Waly. waaw defe naa du sacrifié sax. dama ko def ak sama conscience tranquille. conscience tranquille. li ma def dama ko def sama conscience tranquille mhm. parce que xam biñuy dem ci président mhm. bëggoon ginaaw raay baax mhm. motax ñu ànd ak moom buy demee nag bay tan même bu tané Pape Diame Dieng am nañu sañ-sañu nak bu outé dem né tan ñu def li mom mu def li ñun ñu def lénen parce que xamnañ nañ li ñuy def aussi calculer nañ ko calcul ba nak moy ginnaaw raay bu perte ginnaaw raay perte bu dee gagné ginnaaw raay gagné. Mhm. ñun nak dañuy démal suñu bop luñu am jël. mais pourquoi nga nga choisir Wally parce que gis nañ ni. Euh, ay ay ay ay yenen yeneen tête ñu ngi fi. Mhm. ku ci melni euh, parce que nak li jaaxal ñep moy neuf candidats yi. Mhm. mais duñ ci ñëwandoo ci ñep mais dinañ ci quelque euh, dinañ ci wax quelques personnes. ku ci melni mam Mame ku ci mel ni ku ci melni Habib. hein ku ci melni ni extra ah, extra daal. ñoom ñëpp ñu ngi fi. légui yow nga choisir wali pourquoi. waaw Yalla sax dafa Je mhm. dafa féete ak yonent bi. Mhm. man aussi fêter ak Wally. da nga avec wali. parce que li tax ma ak Wally. Mhm. wali social bi muy def bi taxawé ci liñu gëna wali ci la bokk. Wali ci la bokk ndax dañoo ci yoon wi. mu ñëw di def ay financement ñuy rassembler nit ñi. di len bolé. muy jël alalam di ko def social di jënd ay ordonnance fekk ñu ci nag ñun ñii ñoo ko indi ci politique bi ñoo ne ko grand fekk ko fa mu toog ñu ne ko kaay jàppale ñu ci politique bi. Mhm. parce que tey bu ñu sañoon président jëlee ki ki fi nekk. Mhm. mais Waly Waly est-ce que def na fi dara fii ginnaaw raay. waaw Waly. def def na fi def gis nañ fi yu bëri yoo xam ni gisuñu ko ci ah. mais Khadim bon dama lay wax lenn. nga mhm. xam ko. xam nga lu ne fang kenn ko jeex. Wally li mu fi def. non loolu moom yow yaa koy wax. man maa koy wax moom li mu def yow yaa koy wax. waaw même bu ma faree ci moom aussi. Mhm. même bu ma faree ci moom. Mhm. boo defee micro territoire. Mhm. di nga xam ne xale bu ndaw boo dajal mu ne la Wally def na ci ginnaaw rek. mais doo dem ñu naan la gisuñu ko. non gisuñu ko mooy lan ku ko gisul dafa duggul sa kër wala yenduwul sa kër. parce que tam dafa am loo xam dañ koy wane fësal ko am loo xam ne mu ngi ci biir kër gi te nit ñee koy wax. te Waly mu ngi def loolu. Waly ngi def waaw ànduma ak moom pour ànd rek. du Waly moo a intéressé mais li ma intéressé mooy li muy def ci askanu ginnaaw raay. lan la fi def li mu fi def mooy ordonnance moo ci mën. ordonnance yi moo ci mën est-ce que keneen tamit amul amul mënul taxaw ni man it ordonnance yi maa ci mën. waaw moom la muy def kooku. Mhm. xëy na ka ko gis. moo ko mën a wax. moo ko mën a wax waaye man mi gis teg sama bët ca la ma mm. gis laay wax. keneen ki nag bu ko defee man gisuma ko. ak lan waaw ak li nga xamante ni tamit mooy euh, yeneen social yi nga xamante ni tey ku xewle. Mm-hmm. muy jàng yi nga xamante ni. Mm-hmm. képp ku takk sa baas di conférence ci bayaal bi ak fu mu mënti doon. Mm-hmm. boo ko sollicité waali dina génne li mu yore jox la. te du neenal kenn sama bët ci kanamam mu toog di génne ay social yu bari di ko jox waa daayira yi. ASC yi day dem. Mhm. mango gi jox ko ku xewle boo ko sollicité mu jox la kon ñun loolu lañu soxla ci réew. mais est que yooyu tamit ñoom Pape Ñam meek euh, ñoom Maam Jaara Fam duñ ko def. waa dama ne ñaar ah. moo am ñaari jëf-jëf moo am. Mhm. xam nga def-def. Mhm. dafa am ñaar. bi nga gis ak bu la ump. xëy na ñoom ñu ngi koy def mais ah. li ma gis nag laay wax. ca ka koy def moo tax ma bëgg laa wax li tax nga topp ko xam nga boo toogee fii naan ñu. Euh, ay ngénte moo tax ay ay ay ay ordonnance moo tax non. dañoo bëgg nga ne ñu lii la def biir ginnaaw raay. waaw defee ñu xam ni kat kii jar na ko comme ni ma ko euh, nara defee ci yeneen leader yi nga xamante yi nii ñoo fi nekk parce que ñoom ñëpp yat bi euh, dina dal seen kaw comme ni ma la koy laajee mhm. waaw dama ne xaadim gis nga yat bu dal suñu kaw mhm. bañuñu ko ci politique allez-y ndax ku risqué wul dara doo am dara mhm. parce que on est en politique léegi wax ñu lu mu fi def waaw li mu fi def mooy comme quoi que ne tey fexe na ba rassembler jigéen ñi kooku dégg nañ fi benn madame boo xamante ne xaw ma madame la maire lañ koy wax xaw ma moom it mi ngi ressemble ay jigéen. waaw xam nga tamit nit mën na gis nit di def mu roy ci loolu. Hmm. loolu tam dara nekku ci. daf leen a roy. non defe naa ni ñun defe naa ni loolu bañ koy def muy safet la ñu njëkk a teg ñun. Hmm. faatu Gueye jiite ko. Hmm. loolu defe naa ñun ci ñu ko njëkk a teg. ci la bokk muy def ay conférence su koor loolu ñëpp teg nañ ci seen bët. donc muy manam ko xamanteni tay, muy ordonnance yi ma lay wax nonu def na ci ampagaay di setti maladie di dem hôpital di lijeenti dekk bi xam nga kon defe naa ni jeunes yi seen bopp ñoom mën nañu wax lolu ci wali parce que gis nañ ko waaw kon da suma la déggé moy ordonnance ni mi def euh, motax euh, nga nga choisir ko waaw xam nga dafa am ñaar non non wax ma loolu la rek non non wax ma loolu la rek waaw dama la wax loolu xaadim mm. xam nga lu tax mm. gis lu ne Mhm. da ngay wax li nga xam te moom la def ba pare. Mhm. nga tax li tax nga jàpp ko. Ah. Euh, lii la fi def da nga naan moom moo fi tabax lii. Ah. Euh, moo fi samp lii. Euh, moo fi moo fi moo fi teg lii ma mën a wax ni ah kooku jar na ko. mais boo ñëwee naa ma mi ngi def ci ngénte yi. mu ngi dem ci ordonnance yi dama la mhm. naan non pourquoi. waaw xaadim foofu. parce que gis nga lu nekk. ak kañ ko dénk. ak kañ ko dénk. moom dañ ko dénk. neuf compétents yi. mais mom bo waxé danaan la du politicien. mom poli bu du politicien. Mhm. fa mu nekk poste politique la. ah mom moko wax ndey waaw mom moko wax kan mo wax loolu. waali wala jojo non dama ne la. Mhm. budul politique it limuy def politique de développement la. Mhm. politique ñaar la. mais kon lan motam tax mu taxaw ni du politicien. waaw da koy wax parce que dafa la bëgg xamal ni mom politique de développement lay def lepp luy. doxal askan bi mm-hmm. am na ñaari politique ñoo am mm-hmm. politique beneen bi ak mm-hmm. politique politicienne dafa am ak politique de développement moom luy suqali goxam lool la option option boobu la jël ci chemin boobu la jaar te loolu lay def léegi yéen euh, buñ jàllee ci beneen étape ñu gis ni ginnaaw raay ak nga xamante ni ginnaaw raay noo ku ne xam na ni réyul mais ngeen bëgg fee nekk euh, cinq euh, neuf candidats yoo xamante ne ñu ngi biir ginnaaw raay tañ ni dañoo bëgg ginnaaw raay waaw foofu nag day na waar. waaw lan moo tax kenn nanguwul bootu. waaw ndax lu nekk kenn nanguwul bootu ndax bu tabaski jotee ku ne da ngay dem sa kër tabaskee fa. Mhm. moo tax dañoo bokkuti parti. Mhm. te ku ci nekk dafa am foo jóge ñëw. Mhm. am na sax daanaka tey loo xamante ni mën nañ ko xool ci ginnaaw raay. xam ni ñàkk bokk parti moo tax kon ñun ñëpp dañuy ànd. mais ku ci nekk nag da ngaa jóge ci benn instance ñu jox la ay directif muy côté Sonko. muy côté Mame Diarra Fam di Ousmane Sarr. ak Waly ku ci nekk dafa am foo foo jokk. pour mën a ñëw. ñun nag sunu cas dañoo demee liste parallèle. mais mais est-ce que yéen dong la. ak ñeneen. du ñun rek. am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci national bi. te nag aussi ñoom aussi la même chose que ni ñu def. te ñooñu raison bi ñu am. moom la ñu am mais communes yi ñoo réalité communes yi ñoo bokkul. Mhm. ñun nag suñu kër la ñu xam. seen kër ngeen xam muy ginnaaw raay nord. waaw Euh, muy ginnaaw raay noor kooku mooy euh, Lamine euh, ku ne dégg nga ko ci xam-xam bi nga xamante ni nii loolu lay waxee waaye di leen wax ni tamit aussi mburu mi fii lay tàngee duñu leen bàyyi benn yoon. ndax ku ne xam na ni dinañ dem ci ñëpp. ku ci nekk dinañ xam lan nga bëgg pour ginnaaw raay ndax bëgg naa ginnaaw yomb na waaye di nga ko wax jëfee ko. bu ko defee ñu xam ni ginnaaw raay moo la tax a jóg waaye Lamine du ñu yem foofu ah. mhm. dinañ ñëw ci li nga xamante ni nii mooy lan moo tax yéen ngeen jël benn adversaire muy Pape Niambé lan mo len neexul ci pam Niambé. waaw nit sax kenn du wax dara neexu ñu ci mom waaw ci nim ci nim téwé maire waaw ok waaw dafa am lo xamné mom lañ ko denk mhm. muy les neuf compétents du maire. Mhm. parce que neuf compétents point bu ci nekk. Mhm. war nañu ñun bu mandat bi jéxé wala waxtu bi jot. war na tek lo xamante ni nii defal ñu bilan. ci point yépp nga xamante muy neuf compétents bu ci nekk. mu wax ñu pour nit ñi population ginnaaw raay xam liñ ko dénkoon. bañuñu ko nag. mais liñ ko dénk. moom dafa am viwam duñ ci wax. mais dafa am doxalinam. duñ ci wax mais lañ ko dénk am nañu sañ-sañ ci wax si muy neuf compétent au maire te xam nañ ko. muy yan ak yan. yim ci def. mën nañ ci wax quelque lu mel ni culture. daf ñu ko war a wax ñu xam la nekk ca culture muy les côté culturel ci mhm. artisan yi. Mhm. lu mel ni lu mel sport les ASC ñu xam ñaata la ci def ñu lu melni environnement ñu xam est-ce que environnement bi changé na ou pas ñu xam di xam ay xam yu bari lo xamantene ne mu ngi ci texte bi ñu war ko xam muy neuf compétents yi buñ ko buñ fa joggé ñun wa ginaaw raay dañoo warona a ba mu yag mu defal ñu bilan bo avant affaire yi c'est pas que conseil rek ño wara xam mbir mi. Mhm. mais conseil ño waroon dem ci population bi. Mhm. di bilan maire est-ce que y a non ñu ngoy yéen a ngi xam nga conseil bu ñu leen tegee foofu. Mhm. defe naa conseil bu nekk. Mhm. dafa am fu mu jógee. Mhm. kon conseil yooyu waroon nañ def seen liggéey que di ñëw ci population bi mais conseil yoo xamante ne tey. boo xamante ni da dañoo bokk ci yow. wala mu am nu mu demee am na nu muy demee lu bari du génn. waaye su fekkee nag. transparent dafa am kon conseil yooyu waroon nañu def seen liggéey ba génn ci population di leen wax li xew ci mairie bi. ah jërëjëf euh, ñu ngi lay jaajëfal di laaj euh, sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj mooy. ah xaadim di la remercier. parce que man aussi xam naa ni ah banlieue fësal TV bi. di xaadim di Ahmed Sall. di Modou Kane Modou Kane. defe naa ne li ngeen def lu rëy la dama leen di remercier parce que lii yombul aussi. tey lii émission yi buñ ko doon fay tey dañ koy fay ci lu bari waaye ngeen jël. sen xalaat sen xol ne ñun. ci comme doomu ginaaw raay la dañuy participer ci responsable yépp waxtaan ak ñom ñu wax ñu sen xalaat parce que ñun aussi dañuy jël suñu contribution ci walu wi nga xam fi lañ dëkk aussi jël suñu télé. jaarale ko fekk pour wax ak san wi. pour que jam rek mëna am. limay wote nak sama cadeau moy que ne non violence. liñu koy may moy tay ku ci nekk xamni dafa am lo bëgg. affaire bi compétition la. muy Pape Diame Dieng di maam Diarra di Ousmane Sarr di Habib. Mhm. Euh, di faatu Gueye mi nga xamante ne sax daanaka mu ngi mujjee ñëw. Mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ginnaaw raay. Mhm. nañu fexe parce que tam bu ñu amoon jigéen ñu mel ni ñoom. bu ñu amoon jigéen ñu mel ni ñoom ñu bari. ginnaawraay dina baax. dina baax parce que tamit crème la boo xamante ni tey ginnaawraay bu ñu noppee rek du baax il faut que ñëpp jógandoo ñii jaar ni ñii jaar nii. kon maa ngi sant ñëpp. ñi nga xamante ne ñoo nekk ginnaaw raay ci jëm ci élection yi. waaye nag. Euh, di wax lenn ñun nag à notre niveau. lu ñu mën a def nag pour daaneel waa ji yëkkati ko ba ci kaw. teg ko ci suuf dañ koy def. da koy def waaw parce que nag sunu grand la nag mais dañ koy yëkkati ba ca kaw dóor ko ci suuf. sunu grand la. waaw du lenn nag lu dul nag ginnaaw raay baax. ginnaaw raay ndax ku mënul dem nag. lu yàqu yow lu yàq. yawa yawa jërëjëf. Euh, yéen ñi nga xamante ni it yéen doon suivre euh, seen seen euh, seen seen banlieue TV doon ci feggoog nag ki nga xamante ni it mooy SSM TV doon ci feggoog tamit ki nga xamante ni it mooy Modou Kane di Zair Info di leen jaajëfal di leen wax ni it na ngeen ñu xaat ci yeneen ndaanaan ndax ñu ngi ñëw ci yéen. Mm-hmm. di leen wax ni yëf yi dina leer ndax ginnaaw raay benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te mën a mën goo gis nag di ngeen ñu wax ndax yéen la ñu ngi leen di jaajëfal di wax ni ci beneen numéro. jërë ngeen jëf